Euh, ba tey rek nañ ko commencé woon lañ koy daal di yeggalee di leen di toppal li nga xam ne rek moom moo di information yi ci dialogue bi gannaaw nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di église bi mën nañ ne nag ña fa yëkkateegun kàddu ñu si bëree bëri gis nañ ne dañoo jàppal tànk kii di président de la république wante ñoom ñii kat dafa mel ne ñoom lu mel ne ketame lañ ko daal di jàkk daal di dellusiwaat ci dëgg gi nga xam ne sénégalais yu bëree bari gëm dëgg moom la ñu daal di gëm nekkat moom mii di président dafa war a dem ci ay élection mu koy neex wala boog mu koy naqari euh, ba tax nag ñi nga xam xam ne rek bi ñoom la ñu daal di sàkku euh, te daal di koy demande jamono bi ñu toll nii moom mooy kenekat moom mii di euh, président de la république euh, na daal di taxaw takku nekkat le 2 avril waru ko fee kon nag dafa war a def le tout ba nag bàyyeek sénégalais yi li nga xam ne rek moom moo di seenu réew tatimit beneen ba nga xam ne rek ñu ngi koy sàkku mooy li nga xam ne rek moom mooy date d'élection yi na ko daal di jàpp tënam gën a gaawe ndaxte kat date bi du datam suñu data tax nag ñu daal di koy xamal ne ko du ñu ànd ak yow ci loo xam ne rek ay caaxaan foo ak i rey neen la ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu si bari di ko jàppal tànk wante kat gis nañ image bi nga xam ne moom moo koy firndeel kanam nga dafa daal di ñëkk ba ñu yëkkatee kàddu ji ni mel mën nañu image bi sax daal di nay firndeel que ne buggul kenn koo xam ne rek daf koy wax dëgg wante kat dëgg googee mooy njëkk te mooy mujj nekkat ña koy reetaan loo di ko wax loo xam ne lu koy neex la ñu si baree bari mën nañ ñee teguñu ko nag ci li nga xam ne rek moom moo di bëgg-bëggu ñii di sénégalais yi ba jamono bi ñu toll nii bëgg-bëgg ba du lenn lu dul nekkat nañu daal di dem ci ay élection ci nam gën a gaawee di leen di toppal li nga xam ne moom moo di information yi seen chaîne YouTube Partout TV way leen di abonné saa su nekk